وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه غر الميامين أولا وقبل كل شيء أيها الضيوف الكرام بداية من سعادة البلدي المغربي نرحب بكم جميعاً باسم الخليفة العام لطائفة التجانية الشيخ أبو بكر سي منصور وكافة أسرة المالكية وباسم البلدي التواوني توأمكم أقول مشي جانس Sy ومن معه في البلدية وباسم الشيخ عبد العزيز الأمين وباسم أيضا الناطق الرسمي لأسرة المالكية الحاج مالك أبو بكر صديق جميعا يسلمون عليكم ويرحبون بكم إذا كانت هذه اللقاء أو هذا اللقاء يدل على شيء فإنما يدل على إحياء العلاقة العريقة الدينية الربانية التي تولدت أكثر من قرن بين المملكة العربية والسنغال بواسطة جدنا الشيخ حاج مالك المؤسس هذه المدينة والذي يحمل لواء الطريقة التجانية في السنغال ومن إجراءاته الربانية بعد تكوين جماعة من المسلمين ينتمون إلى هذه الطريقة الغراء حيث شيخهم يسكن معكم وضريحه معكم حاول بتربيته أن يرسي في قلوب المريدين المحبة الصادقة لسيدنا الشيخ أحمد التجاني إذا هذه العلاقة علاقة عريقة حتى الآن جل سكان هذه المدينة يتمنون الزيارة إلى ضريح شيخهم الذي كان في فاز كما يتمنى كل مسلم أن يحج بيت الله الحرام المريدون التيجانيون يتمنون هذا إذا هذه العلاقة علاقة قديمة زيارتكم وحضوركم لمعرض هذا الدولي حجرة بضربتين تصادف بمناسبة كبيرة السنوية التي تقام هنا في السنغال ألا وهي مولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أسسه جدنا وشيخنا حاج مالك سي إذن حجرة بضربتين مناسبة ديني ومعرض كبير التي تربط وتحيي العلاقة التي سبقت بين السنغال والمملكة المغربية لا أطيل الكلام فقط نيابة عن جميع سكان هذه المدينة يكنون لكم كل تقدير ومحبة وشوق لأنهم إذا رأوا إذا لم يروا شيخهم ولم يتمكن بجانبهم أن يذهبوا هناك إذا رأوا هناك مثلكم يعتبرونه يعتبرونه كشيخهم هذا يدل شيئا كبيرا لسكان هذه المدينة باختصار أقول هذه الكلمات فرحين بكم جدا وإن شاء الله أدع هذه الكلمات تتمه أخونا هذا أبو بكر صديق نتمنى لكم إقامة طيبة ورجوعا سالما إن شاء الله داعين الله أن يتتكرر بسنوات عديدة مع الازدهار كبيرة كما قاله آه، البلدي هذا من أمنياته أن تتكرر هذا هذا المعرج في كل سنة مع زيادة بعون الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بقي yi السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته dañu doon yëkkati kàddu di dalal sunu gan yu tedd yi nga xam ni euh, gan gënu ko tedd ci ñi dëkk Tiwaawan ndax mooy meeru dëkk ba nan Faas te Faas buñ ko waxee xolu tiijaan yëpp yëngatu ndax kiñ yaakaarul ku dul moom fa la dëkk fa la tëdd muy Seydina Cheikh Ahmed Tidiane yi di sunu sëriñu sëriñ mu ñëw fa ñu koy xoole waaye mu ñëw itam ngir teewe lii nga xam ni moom lañ bëgg a jëmmal fii ci Tiwaawan mu dajeeg gàmm gu mag bi nga xam ni dañ fiy màggal Seydina Muhammad salaa sallam loolu nag loo gis rekk am na loxo yu mu jaar ñu koy sante sunu meer bu baax bi monsieur Dianthi mbeng ñu ngi koy wax léegi rek ci biir saal bi ni ko di ko wax sunu gan gi ni ko du meeru kese kese waaye ki sos dëkk bi ci diine ak ci tarixa muy Seydil Hadji Malick naka jekk li mu man loxo maamam ak loxo bàyyam mos cee jóg moom maire bi kon bu ñëwaatee nekk maire wat ca watit ñu koy ñaanal yàlla jéego bii mu def ak xalaat bu rafet bii yàlla ko ci yàlla jàppale te gën ko yaatal waaye cant goog ak ngërëm yi nag ñu ngi koy jooyal itam ci sunu sëriñ bu tedd bi muy Cheikh Ahmed Tidiane Sy doomu sëriñ Abdou Aziz Al Amin ni ko maire waxe moom itam ku ne xam ne def na ci jéego yu mag ak yéene bu sell ñi ngi ñaan yàlla yàlla mottali seen yéene yooyu lii nag xëy na tey la njëkk waaye ñi ngi ñaan yàlla ni nga xam ne relation bu yàgg moo am ci diggante Sénégal ak Fès ci wàllu ruux ci wàllu yàlla ci wàllu diine mu jur lu ëpp lii lii mooy commencement bi waaye mën na jur yeneen ak yeneen ak yeneen incha allah ndax la ko lal lu mu lalu day continuer waaye du dagg ndax arab yi dañuy wax ni maa kaana lillaahi daama wattasal wa maa kaana li xayrillaahi inqataa wan fasal te insha allahu lii yàlla rek moo taxoon mu relation am relation bi am diggante Fès ak Sénégal kon yeneen ak yeneen ak yeneen la ñaan mu judd ci ñu wax ko nag ci turu xalifa bi ak ci turu fu njabootu Seydil Hadj Malick yépp السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لعلي لا أطيل عليكم لأن الكلمة التي تفضل بها أخونا الإمام الحاج موسى نيان كلمة جامعة شاملة وكما قال الشاعر عباراتنا شتى وحسنك واحد وكل إلى ذاك الجمال يشير فكل الكلمات التي تناولها السادة الذين سبقوني إلى الكلمة تنصب في مصب واحد وهو إسداء تحية عبقة وترحيب خاص بمقامكم في هذه المدينة العريقة مدينة الشيخ الحاج مالك ولا شك أن لمدينة فاس بصمات في كافة ربوع المعمورة ولا سيما في السنغال ولا سيما في تواون بالذات مقر الخلافة الطريقة للطريقة التجانية في السنغال ويحضرني في المقام قول شيخنا الحاج مالك في قصيدة تائية قالها في حق مدينة فاس زر أرض فاس بها غنم اللبانات وكل ما تشتهي من فيض راحاتي وكان يتمنى رضي الله عنه أن يزور مدينة فاس مدينة فاس إلا أن المقادر إلا أنه شاءت المقادر أن يسر الله له قيام رحلة إلى حج بيت الله الحرام لكن مع كل ذلك كان يقول فكم أشتكي عند الإله زيارة زواياه لكن العنان بقبضتي أنادي فهل يجدي النداء أخ الجوى هل الدهر يعطيني مرادي ورغبتي وما زلت أرجوها من الله وحده وإن لم أنلها يا مرارة عيشتي إذا سيادة عمدة مدينة فاس والوفد المرافق لكم مدينة تواون ترحب بكم سائلين الله سبحانه وتعالى أن يبارك في جهودكم وفي مواقفكم ونحيي من خلالكم عاهل المملكة المغربية الشريفة صاحب الجلالة, صاحب الجلالة محمد السادس حفظه الله ورعاه ونرجو أن تكون هذه الزيارة التي قمتم بها اليوم في هذه المدينة العريقة تواوا أن تكون فاتحة عهد جديد بين المملكة المغربية الشقيقة وبين الجمهورية السنغالية في كافة الأبعاد الحيوية وفي جميع النواحي الاقتصادية والعلمية الثقافية والروحية الدينية لكم منا ومن سماحة الخليفة الشيخ أبو بكر منصور ومن كافة أعضاء الأسرة المالكية تحايا عطرة مباركة مشفوعة ومقرونة بتشكرات عميقة خالصة ودعوات صادقة بارك الله فيكم وختاما أشنف على مسامعكم بعد أبيات بعض أبيات قالها قديما أحد الشعراء الموريتانيين حيث قال خليلي عوجا وانزلا بتواوني تواون فيها اليمن للمتيامن فما طار فيها طائر متشائم ولكنها ذات الطيور الميامن جزى الله سفنا بلغتنا لأرضها أتم جزاء من جزاء السفائن فلم يك قبلا في تواون منزلي ولا هي من أرضي ولا من مواطني ولكنها صارت مدينة مالك وما مالك إلا كريم المدائن فمؤسس المدينة الشيخ الحاج مالك وكافة أحفاده وأتباعه وأحبابه يجددون الترحاب بكم أو الترحيب بكم في مدينتكم بين أهاليكم صاحبكم السلام في حلكم بيننا وفي ترحالكم إلى أعز قطر في قلوبنا وهو المغرب سالمين غانمين بمرضاة الله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته xamna du gudd ndax gantalon nañu ndax li pap Moussa wax suñu imam doyna xana li wolof wax ni rek lu bax du doy ñu nuyu suñu gan gu tedd gi nuyu naata ngom bi nga xamni mom la yalla jaarale ci mom ñew gi mudi al muhammad jagn simbeng yalla nako yalla ko tawfiq nuyu ki nga xamni tay. jëmmam moo fi jëmmu xadara bi di fi jëmmu xalifa bi di sayid cheikh ahmad tidiane abdul aziz mu mel ni wax ji du gudd ndax tisbaar ji dugg na dafa am lu am solo rekk loo xam ni moom lañu yàlla defal mooy bépp taalibe tijaan bu aju kër cheikh alxaaji malik ak bu fi ajuwul soo xaree xolam fekk nga ci bëgg a dem ziyaara ji faas lolou defena mom la yàlla defal sayyidina Cheikh mi nga xamni mom lañu bok ci tariqam mu melni lolou nak dafa am ay liggey yu mu laaj am ay taxaway yu mu laaj ba nga xamni tay ñi new dolek ñi yemamaay ñep bis dana ñëw ñu mëna a li seen yene bobu moy dem sukk ci kanamu sayyidina Cheikh te yàlla man nako inshallah maa ngi koy wax léegi ci biir ni ko boroom kër gi Cheikh Al Hadj Malick déggam diine gu kawe tax na bi mu bëggee dem faas yàlla dogal mu bay toolam ba mu yegg mu gis ni mbay mi kat antu na li mu ci am mat na paasu màkka ci dégg diineem gu kawe ga mu ni man nag dem màkka mooy sama farata moom la ma yàlla gàll waaye ziyaara ji sama sëriñ du farata ci man kon damay dem màkka cheikh alhaaji malik bàyyi faas dem màkk ndax mooy farataam moom la ko lislaam gàll bi mu demee ñëw yàlla indi gàllankoor ci wéradi mënul dem faas muy jooy rekk naan ak a neexoon ma man faa àgg ba seen taax ya ba seen koñ ba ba seen barab ba ba seen ka nekk ca biir ba rukk euh, rukk sama ay bëti oom ci barabam tawat yàlla li mu bëgg mu mel ni defu ko def na ndax njabotam gu tedd gi defal nañ ko ko cheikhul khalifa radiyallahu anhu dan na bindante ak kilifa ya nekk faas waaye maam alxaaji abdul aziz ñëw taxaw taxaway bobu difa fa dem buuru Maroc alxasan sani tek ko fu kawe jox ko cër bu reey ngir fonk ko ak bëgg gum bëgg góor gi tabarakallah relation yi di dundu ba ci jamono borom daara ji cheikh mouhamadul mansour dem na fa dem bu reey ba ci Cheikh abdul Aziz nga xamni mom mo daan coordonner sen taxaway yoy yep di dem di dem ba defenaani daw rek la fa jotul dem ngir wéradi di rattaxal di rattaxal di rattaxal kon lolu defenaani ni lu am am solo la ngir wane rek ni ñun amuñu lu fas wa fasit amuñu lu dul amuñu lu yenen barakis diine yi nekk ci Sénégal kon nak monsieur le maire ñi ngi rafetlu initiative bi di la ci encourager di ñaanit yalla mu jappale len ba fiñu bëgg mu yegg fa mu yegg fa parce que mbir mu nekk suivi ba moy la moy la cey jëriñ ci tabarakallah ñepp nga taxaw ubbi seen bëtt di ñaan yalla mbir mi yalla def ci suivi ndax buñu xéxalé seexalee ak faas na ni mën na am jëriñ yu bare bare yo xamanteni ci kanam dana ko gëna feñ kon ñi ngi lay sante di la gërëm ci taxaway yi di sante gan gi di ko gërëm ndax ni mu ko waxe ñoom bari jot kuy miin Maroc di fa dem yàlla dogal na miin nañ fa tuuti xam nañu ñoom seen calendrier ni muy chargé waaye su ko daggee ñëw fii am na lu muy firi mooy importance bu mu jox dëkk bi ak importance bu mu jox kilifa yi fi nekk kon nag ñu ngi yemale foofu kàddu gi di nuyu ñëpp di leen ziyaara di ñaan yàlla mu defal ñu tawfiq gàmm gi ñu dëgmal yàlla seddal ko guyu xalifa bi fi nekk muy cheikh bakkar Mansour yàlla defal ko tawfiq ak rakam yi nek ci gannaawam sëriñ Sidi Ahmed sëriñ Xaaji malik sëriñ Xaaji malik ñu yag ko sekk nam mu doon àndandoog ñom di sekk cheikh abdul Aziz ñu àndandoog njaboot gi yeb ñaan yàlla defal ci hadra bi jam defal hadra bi sutura defal hadra bi ndam ñi yemale fofu kàddu gi di waxat assalamu alaykum wa rahmatullahi wa الحمد لله رب العالمين

Je suis très ému. C'est pour moi, vous avez parlé de l'honneur et du bonheur, tout l'honneur et le bonheur est pour moi. Que je sois ici, je suis vraiment très touché, très honoré et très heureux d'être à la ville de tibawan euh, cette présence, il revient à l'invitation la fraternelle invitation euh, de Monsieur le maire. Euh, je suis honoré euh, parce que le Sénégal et le, et le Maroc, c'est une longue histoire. C'est une histoire séculaire de fraternité qui a duré dans le temps avec une stabilité, avec une permanence, grâce d'abord à la clairvoyance de nos deux chefs d'État, Sa Majesté Mohamed VI, Habibullah et Son Excellence le Président Macky Aujourd'hui, je suis à la ville de Tibawan grâce à cette honorable et fraternelle invitation pour assister avec vous à cette euh, fête que vous mémorisez chaque année, qui est la fête du Mawlid Nabawi. C'est une fête qui dans la permanence, inscrit l'esprit et la lettre du prophète Sidna Muhammad la paix, la quiétude et la permanence de cette religion, l'islam, qui donne à tout, toutes euh, toute l'humanité, qui donne ce bonheur qui est partagé et que nous sentons dans cette salle et dans cette ville dès que nous rentrons, je parlais tout à l'heure à M. le maire au sujet de toute l'activité autour de, la ville. Donc, je suis très heureux et très honoré de participer à cette fête-là. Et je tiens à cette occasion à remercier, Monsieur le maire, qui a lancé une nouvelle initiative qui va donner, bien sûr, la fête et euh, son potentiel interne qui la perpétue d'année en année, mais c'est toujours agréable et c'est toujours utile de joindre l'utile à l'agréable. Et à travers cette initiative-là de lancer la première édition, et je suis sûr que ça va être une première réussie et que ça va être dans le temps et dans la durée, cette première édition d'une foire internationale du Maulid Nabawi à laquelle on associait le côté spirituel, le côté religieux, mais également le côté économique et commercial. C'est très important. C'est également très important parce que c'est une initiative qui est lancée dans l'avenir et à l'international. Et notre participation à cette foire-là, notre, euh, notre confirmation suite à l'invitation, c'était une confirmation tout à fait naturelle. C'est un devoir que de participer, que la ville de Fès participe avec la ville de, de, à cette première édition de la foire internationale. Donc, Monsieur le maire, je tiens également à vous assurer que notre relation sera davantage renforcée, que nos échanges le seront davantage et que bientôt, comme je vous l'ai dit tout à l'heure dans le cadre de notre échange, bientôt on va lancer euh, cet accord de partenariat de coopération, de jumelage et de, fraternité. et ça sera pour nous, ça sera pour l'occasion d'étudier tous les volets de la coopération, sur tous les plans, encore une fois pour que cette coopération qui est inscrite dans l'histoire, qui est inscrite dans le présent, le soit également dans le futur à travers des échanges et à travers une relation qui est bénéfique à, toutes, à nos deux villes. Je tiens également, Monsieur le maire, à vous remercier pour toute l'attention que vous avez prêtée à la délégation marocaine. L'hospitalité sénégalaise, l'hospitalité de Tivawan n'est plus à démontrer, c'est une hospitalité qui est une hospitalité inscrite dans l'histoire de ce pays, inscrite dans l'histoire de cette ville. Je tiens à vous remercier de tout mon cœur parce que nous l'avons senti dès notre euh, euh, présence ici à Tibawan. Bien sûr, cette présence-là ne serait pas à cette, euh, à cette hauteur que grâce à la participation de plusieurs institutions marocaines. et je tiens à cet égard à remercier en premier lieu M. l'ambassadeur Barada qui a entouré cette participation et qui l'a suivie je tiens également à remercier du côté de la délégation marocaine, surtout les 15 artisans, les 15 artisans qui sont ici présents, qui tiennent et qui tenaient à être présents pour participer à cette première édition. Je tiens à les remercier et je tiens à remercier la Chambre de l'artisanat, la Chambre de fête de l'artisanat, qui est présente ici par le, premier vice-président et qui voulait participer avec nous à cette, à cette rencontre. Je tiens également à remercier l'Office national marocain du tourisme, le centre, régional du tourisme de, de pour vous dire que toutes les institutions étaient mobilisées autour de cette participation et également, bien sûr, la préfecture de Fes et M. monsieur le Wali de fes de Bien sûr, à la fin de, ce mot, que je voulais fraternel de tout mon, euh, cœur pour euh, remercier toute la population de Tivawan pour son hospitalité et pour cette nouvelle initiative que vous avez lancée. Je vous invite, Monsieur le maire, à visiter la ville de Fès pour que nous concrétisions cet accord de coopération et de jumelage. Et bien sûr, bien sûr j'invite tous les Tibonais à venir visiter euh, la ville euh, de Fès. Tout à l'heure, vous disiez que Je vous dis la même chose. Ibaratuna Shatta wa Husnu wa Assalamu alaikum wa alaikum wa rahmatullahi wa monsieur le maire Saïd Adressi, monsieur le maire euh, de la commune de l'arrondissement de Fès mesdames messieurs les membres de la délégation marocaine c'est un immense plaisir pour moi de vous recevoir ici à Tuaoué à l'occasion de cette foire internationale du Maoulid C'est une occasion, comme je l'ai dit tantôt, de raffermir les relations entre le Maroc et le Sénégal, et surtout entre la ville de Fès et la vie de Traoré. Le précurseur de cet événement du Maoli de Traoré, c'est El-Hajj Malissi, a mis en œuvre cet événement pour magnifier le meilleur des hommes. Il en a fait un modèle si bien dit Dieu dans le Coran, cet homme donc qui est notre meilleur modèle a fait de notre guide celui qui est devenu aujourd'hui. Quelqu'un suivi de toutes parts en raison d'une personne en qui il a confié toute sa spiritualité. C'est cher Ahmed Tijan, Cher Ahmed Tijan chéri. C'est grâce à la voix Tijania que Tuawan est couru aujourd'hui et qui lui a valu l'organisation de cette foire internationale. Nous l'avions bien dit, et vous l'aviez bien dit tout de suite, c'est l'occasion de joindre l'utile à l'agréable de faire de la spiritualité un levier de développement économique et commercial entre les deux pays, entre les deux villes Donc, euh, au nom du Khalif de et de ses illustres frères, euh, nous vous réitérons tous nos souhaits de bienvenue dans cette ville. Nous vous souhaitons un agréable séjour à Tuaouane et nous espérons que ces séjours se répéteront. Et ce sera l'occasion aussi pour les membres de la communauté tuavanoise de vous rejoindre au Maroc pour renforcer ces relations. Je, à ces remerciements tous vos collaborateurs, tous les membres de la délégation euh, du Maroc, à l'Office national aussi du tourisme, qui n'ont ménagé aucun effort pour que cet événement puisse avoir lieu. Je vous remercie de votre présence à Tuawan. Et je vous dis encore une fois, marhabik fi baytikum. ci gàttal rek di wax ni dañu fi ñëw ngir jëmmal njabootu Seydi Haj Malick yëpp ci xew-xew bii nga xamante ni moom le maire yi initié muy foire internationale du Mali. nga dafay lëkkale li nga xamante ni mooy cëslaayu kër gi muy tabax ruux ak koom maana liggéey loo xamante ni mën nga ko mu nekk sa cëslaay ci wàllu wutum koom ngir mën a gën a taxawal sa tabax sa ruux fa tabarakallah muy événement boo xamante ni mairie Tivaouane ki ko jiite di jaay si mbeg moo ko initié ah ñu waxtaanoon teg sëriñ Abdou Aziz Alami ca bu muy dund mu barkeel ko joxe ci ndigal ba bi nga xamante ni yàlla def na li mu namm ci moom ñu xalaat sax bàyyi ko ak maire yi waaye ñu ba ñu demee ba ci biir maire ne wa daal comme bébétam la woon te demam dina tax fa mu tëdd bu yëgee ni koy mottali nañu yéeneem dina ci kontaan kon nañu puus rek ba réaliser ko donte temps bi xatoon na ah yéene boobu nag la ñu bëgg mottali tey ci foire internationale du Mawlid bi ah, ba tey ay administration sénégalaise ministère du commerce ak CICES jàpp ci bu mu egg fi mu egg tey ñu ci leen di remercier di remercier euh, l'ensemble de la de l'administration sénégalaise ñi nga xamante ni jàpp nañu bu mën a jëmmal foire bi ah, di remercier aussi la mairie de Tivaouane ak ses collaborateurs ñi nga xamante ne ñoom ñëpp jàpp nañ ci ba tey foire bi mën a jëmm ah ñuy ñaan yàlla mottali ko ak jàmm te mu nekk première édition waaye yàlla def ko mu nekk édition yi édition euh, ba ba ilaa yow ah di gërëm it population Tivaouane ni nga xamante ne ñoo ko taxawee ndax gis nañu depuis démb ñu ngi ci inauguration yeeg euh, bépp événement boo xamante ne ni ngi euh, nekk ci foire bi ñu ngi koy jëmmal di ci taxaw seen coono yooyu ñu ngi leen ci massaw di ñaan yàlla def ko barke mu nekk njëriñ ngir population waaye aussi mu nekk njëriñ ci Sénégal nekk njëriñ ci diggante ñaari réew yi. di gërëm ñëpp di sant ñëpp di ñaan yàlla barkeel lii ñu dëbbal di juggi ci ak jàmm ñu génn ci ak jàmm asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu kon ñu def ñu ñaan na ubbee woon rekk muy fatiha ak salaatul fatiha ayatul kursi lixlaas falaqi ak naas tëje ko salaatul fatiha ñu dugal ci yenn yëpp li ñu mëbët yàlla barkeel ko yàlla barkeel diggante ñaari réew yi yàlla barkeel diggante ñaari dëkk yi ba la namm ci seen diggante lañu ñu nammoon ci relation ba Seydi Hadj Malick amoon ak Cheikh Ahmed Tidiane Chérif mottali ko ci ñun ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa Tiwaawan so maire Chaise nag bi mu jëlee na waa Tiwaawan yëpp ci ni ko teeroo kon monsieur le maire Gora Mbaye na ñëw euh, invité na monsieur le maire Mamadou Diagne su Mbengue pour mu ñëw Chaise visité ko banqaas yooyu yëpp ñu exploité ko Serigne Babacar Lo donc Serigne Babacar Lo tamit mu ngi noonu euh, ñu xool caméra yi waaw ak euh, mu tur voilà la bulle essentielle de Fès voilà oui il va lui remettre aussi la médaille de la ville de Fès mu koy jébbal tamit collègue maire am Mamadou James Mbeng vraiment lii nekk na lu rafet ñuy ñaan yàlla rek ci barke Cheikh Ahmed Tidiane Chérif muy euh, Serigne Cheikh tamit ñu ngi noonu ci ko jox la médaille de la ville de Fès moom tamit mérito na ko ndax taxawaayam donc vraiment jotaay daal lépp yëg la ñëpp kontaan nañu macha allah

mais également le terrain de basket de l'école Oulman Mansourci, communément appelé École 1. Mais l'année prochaine, nous pensons déjà qu'il faudrait élargir le champ, choisir d'autres sites et à terme, choisir un site comme le site du terrain préfecture. Et dans les 5 ans, nous pensons que 80 à 90% des commerçants qui s'installent un peu partout à Tiawan devraient être regroupés au niveau de ces sites de la foire. Nous avons un, ambitieux programme de modernisation de Tuawan qui est porté par le président de la République Macky Sall qui, comme vous le savez, a déjà mis dans la phase initiale plus de 22 milliards pour nous gratifier de l'ensemble de ces infrastructures dont là où nous sommes justement, c'est-à-dire le palais des autres, cher Sedi El Hajimal ici, Et qui dit modernité, dit organisation de l'espace, qui dit modernité, dit organisation de l'occupation de l'espace. C'est dans cet esprit que nous avons pensé le faire lors du Mauloud et bien sûr avec le plan directeur d'urbanisme que nous avons, qui a été financé à hauteur de 600 millions de francs CFA, que Tuaon puisse donner un exemple dans le cadre de l'organisation et de l'occupation de, l'espace. Mais qui dit Tuaon dit le hadar de Cheikh Seyd El Hajim Qui dit Cheikh El Hajim dit propagateur de la Tijania, au Sénégal. Et qui dit Tijania dit Cheikh Ahmed Tijan. Cheikh Ahmed Tijan, shérif. Cheikh Ahmed originaire chef d'Algérie, mais aujourd'hui la référence pour nous, c'est la ville de Fès où il repose hmm. et où nous partons régulièrement pour des pèlerinages. Nous avons donc choisi la, le royaume du Maroc et plus précisément la commune de Fès pour être l'invité d'honneur de cette première édition. Une manière pour nous de faire descendre la baraka de Cheikh Ahmed Tijan sur la foire. Nous avons bon espoir qu'il va illuminer cette FIMA, Foire internationale du Maouloud. En commençant, nous commençons par le commencement. Et nous avons choisi là où repose notre vénéré Cheikh. Et pour ce faire, puisque la foire est portée par la commune de Tiawan, nous avons pensé effectivement qu'il est temps de mettre en œuvre ce souhait des populations tiawanoises, à savoir nouer des relations gagnant-gagnant entre la ville de Tiawan et la ville de Fès. C'est ainsi que nous avons sollicité de notre cher ami et frère le président du conseil communal, Driss El Azami Drisse, d'accepter de venir participer à cette foire. Il a accepté en nous envoyant 15 exposants, en nous envoyant une délégation officielle avec le vice-président de la Chambre des métiers de la ville de Fès, avec le président également du conseil communal de l'arrondissement de Fès, accompagné en cela par l'ambassadeur Barada et l'Office national du tourisme marocain. Mais il a tenu lui-même, malgré le fait qu'il était hors de son pays, à son retour de passer par Tuawan pour magnifier cette initiative que nous avons prise, mais surtout pour s'engager avec nous à affermir ces liens. Euh,